vidéo boobu nag lii moo passé consulat Sénégal aujourd'hui ndax li ngeen di wax jaspora jaspora jaspora am na ñu sonn torop nag ñu sonn xool leen mooy li ñu fi yóbbante woon plateforme bi ndimbal bi xool leen consulat ni mu baree ay nit ndax trois cent euros donc trois cent euro ñu dem foofu ak coronavirus be feebar bi ñuy buuxante ñuy xeex di defante lu nekk sénégalais fu ñu nekk rek dinañu wone suñu bopp fu ñu nekk rekk ñu wone suñu indiscipline bi maa ngi jéggalu ci wax bi nag c'est pas tout le monde ils sont n'est pas mais am na ñoo xam ni loolu daal mooy loolu xool leen consulat bi xool leen ni mu mel pour cause de trois cent euros te buñ la ko joxul woon yaa ngi dund yaa ngi tedd yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi fay sa yenn yi moom jarul dara dara dara dara loolu moo taxoon ma indi vidéo boobu consulat Sénégal bu France la xewe merci beaucoup jërëjëf